oustaz Diaga muy bañ je suis désolé. Ah, ah. dama ni da koy bañ. waaw ah. bi. na bu koor yow bàyyi jaxase na bu koor yow. nii yow mën nga kër goo dem gunge leen police. bokkatul ci jargon ba gendarmerie. génne ko. oustaz Diaga mii. Mhm. xamoo ko maa ko xam. boo dee wër oustaz nandite mi ngi ni <laughs> boo dee wër oustaz pédagogue. mu ngi nii boo dee oustaz boo xamante ne mën naa wax ak toutes les génération mm-hmm. mu ngi nii boo dee wut dëgg original mu ngi mën naa tooñ noonu la a jàngale neex na waxtaan te ku ne mën naa waxtaan ak yow ku ne mën naa bokk ak yow génération ku ne mën naa séddoo ak yow baa xam nga ne oustaz Diaga bi moo koy xam boobu gën naa nekk xale tuuti. ndeysaan. waaye doo ko ragal. ndax ni mu mel moo tax wàccee boppam suufe gi woyof gi mm-hmm. ni mu mel nii maanaam lii ngeen gis ci plateau bi rek am na lu bari loo xam ne oustaz Diaga da ko dëbb wanu leen ko mm-hmm. oustaz Diaga mi ngay croisé ci couloir lu rek oustaz bu la jekkoo dëgg ma xam ne jekku na la boobaa nga xam ne daanaan jàpp na la dëgg mm-hmm. laa ilaha illallah yow mi koy wax je suis désolé nag nga koo xamul boo ko xamoon dootoo ko waxati ndax ñàkk xam luy je suis désolé. Mm. moo tax ba nga ko waxee mu ne tekk ni noon naa dàq kurpañ dóor la te dara du la ci fekk. <laughs> ci waaw ndax yaw kuy waxtaan ak yow ci wolof te nag loolu dafa may nit ñu ko taamu dëgg-dëgg. Mm-hmm. parfois ngay waxtaan ak nit ci benn langue mu xël la dugal beneen langue. Mm-hmm. yow langue mën nga kaa bañ a comprendre. Mm-hmm. maanaam yow da ngay susceptible parce que da nga naan kii li may wax lan la si daf maa saaga. wala daf maa ñàkkee teggin wala daf ma wax lu jaaduwul. boo ko waxatee nag je suis désolé nag yow. di nga fi fekk ay xolal jagatos ak ay jagatita yu mel ni ñun ñoo xamante ne làkk boo ñëw mën nañ cee dugg ak yow. Mhm. boobaa dañ lay gaañ te suñu loxo du la laal oustaz Diaga buggul je suis désolé te boo xefee dama koy dindi ci laru su tubaab bi. mami loolu bul ko tuddal. eh je suis désolé oustaz Diaga moom lay pa pa pa mu dee dootul existé ci yaa ngi dégg. Mhm. waaw kay baa kontaan nga mënoo ko kenn waxti. waaw kay. maa ngi jéggalu ci tubaab ngay wax. kay ngi jéggalu wax ko ci wolof. mu xam li nga bëgg a wax. mun ko ko wax ci nasaraan di ko réeral ndax ustaas bëggul lool ustaas da koy bañ. Hmm. dégg li bàyyi ili doon wax naan bàyyi góor gi nee na déet bëggul bëggul bëggul waxati ngi dégg ko pour otage yow bii di jël téléphone doomu ustaas jaaga bii di ci envoyé ay message arrêté ko. Hmm. ustaas bëggul loolu. ustaas bëggul ngay jéem a cëppal di jéem a teg dil hmm. beneen bi ci topp ma daanale foofu oustaz Diaga daa bëgg jigéen toog ci pooju ndeyam. waaw oustaz Diaga bëggul jigéen buy doxantu ji jëli air. ni sama mag di daan ko defee ba sama yaay yéen ko kuur. bëggul jigéen buy dem cafétéria. naan da ngay naani café chocolat chaud. bëggul jigéen buy buy dem restaurant. ndax la nga war a lekk mu ngi ci biir kër gi. toogal ci sa pooju ndey ma jëkkër fekk la fa. loolu nga bëgg waaw loolu rek la bëgg de. loolu leer na. rek kay bañ oustaz li la bëgg. dee leen defal oustaz Diaga li mu bëgg bu ngeen bëggee jot suñu jikko. loolu dëgg. loolu dëgg waaw. oustaz loolu la bëgg. defal ko li bëgg. doom doom alal la. waaw dëgg la sàmmal. sàmm mais oustaz boo ko dul bàyyi mu génn du xam àdduna de. waaw <laughs> am na sax waaye mënut a ñàkk nag parce que am na loo xam ne bi nag dafa am foo yem. boo jur moom dafa am fu mu yem. la des moom jooma moo ko yóbbaale ak yàlla. Mhm. mais xanaa kon buñ ko invité ay soirée du dem. ah xalaat la soirée. soirée lan yow. yii soirée ci. mais nag xew-xew say mbokkam yeeg ay natt ak yooyu dinaa ko bàyyi parce que nag. anniversaire guddi ay ay ñun ñi nga xam ne ku ñu invité restaurant ku ñu invité wul sax. ñu woote na la yóbbu ñu ñu naani café sëñ bi. nit di sorale noonam. dëgg bu xëy liggéey noonu a tax. Hmm. kon ñu bàyyi yooyu nit buy jàmbu yàlla ajana tax. Hmm. nit bu xëy di liggéey noonu a tax. mais dama bëgg xam ndax yow li ngay wax nii maanaam diine la wala ñun dañoo war a bàyyi yooyu daal ay. déedéet dama ne ay kii euh, adduna. yéen tamit boo nekkee ko déglu de tax may wax. Hmm. adduna boo ci nekkee day adduna boo ci nekkee da ngay mel na yow danga nga saaraan bokkutoo. waaye nag boo jaamu yàlla dafa ne léegi nga pare di faatu. kon balance la daal adduna ak adduna ak diine balance la islam nee na boo nekkee ci àdduna mu mel ne da ngay da nga da ngay saaraan xam nga yàlla bu dee ba naan wala asri innal insana innal insana waaw. lu tax mu jiñ ci tàkku tàkkusaan waaw parce que cérémonie yi moo ci bëri. dëgg la. mais bu yàlla wootee ñee yëtteel yàlla bëreetuñu. Mhm. yàlla kon giñ naa. ci temps boobu nga xam ni làmb yeeg siwaare yeeg football beeg nawetaan bi. ca la ëppee. Mhm. ak politique bi. Mhm. ak mariage yi. Mhm. nee na bu la ñuy solu ci jasneer ba dem ca mariage ba ak ca làmb ja. bu tàkkusaan ba mu wootee da ngeen a bañ du ko sol kon pet dugg na leen. pet dugg na leen. te nag wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun yàlla ne mën a sàkk yéen a jinni jaamu la mais jaamu yàlla ba pare nag dem sanc dem fu la neex xam nga saa fi wax benn wax joo xam ngeen ñu bëri di ree. damaa génn ci jàkka génn fekk famille yi di tëgg xam sabar yu mel musique waaw waaw ñu ne fay leen oustaz ñëw na man ne kii animé yokkal musique bi. waaw nga ni ya. lu wax ko loolu. waaw yokkal musique bi parce que ci jàkk ji laa génn. waaw waxtu passé na te waxtu yooyu ñëwagut. diine la ak jamono. te nag ci jamono lañ nekk. man ko yokkal musique mm. yokkal musique bi. Mm-hmm. waaye nag xoolal du ma tàcc digguma ci géew bi tàccuwuma. Mm-hmm. mais maa ngi doon seetaan. mais mm-hmm. bi ma paree xola damaa jël micro ne waaw eh, waaw waaw ndax yàlla nag jox la jox la yàlla nag oto bu jo bu bëgg a jot takkusaan tëj leen lépp dugg judd yoo pare ñëw yokk musique bi yokk leen. ndax timis ñëwagut. mais ci àdduna la njëkk. dëgg la diine ak jamono. mais àdduna xoolal nit nit lu ci nekk di xaru de xot boppam déedéet. yàlla damay ci la bokk de. yàlla damay non fële nag. ngay dem fii dugg fii. waaye l'essentiel daal li àq yàlla jox ko. dëgg la waaw sa moo jigéen. dafay mm-hmm. gàtt tànk. c'est ça wala day gàtt. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ah oustaz bàyyi ñu ñuy dem di doxantu ji dara nekku ci dem restaurant dara nekku ci naani café dara nekku ci doxantu jël air dara nekku ci ma ne ci jamono la bokk ci jamono la bokk ah adna amul solo adna amul solo oustaz Ah. waaw gàtt nañ tànk gàtt nañ tànk koy gis Aya ah, Seydi. giñ naa ko ci barke Ngale mii. kàddoom du jóg. Ngale man mi mi mi. <laughs> Ngale kan mi. dañ koo seexal. <laughs> nga ne giñ ko ci barke Ngala. dañ koo seexal. moom mii. leneen di nëbbu di ko seexal. ku ko seexal oustaz avant muy commencé. bi. Ngala doo seexal. seexal na ko doy waar. <laughs> ki seexal Ngala. Hmm. seexal na ko doy waar. ki seexal ngaa la seexal na ku capable coupable criminel wax xale bu xarañ. Mm-hmm. Mm-hmm. xale bu bëgg bu xam lu ma bëgg. ci ciy dox day rek koo seexal yow la ah, daa ko seexal borom da ko seexal de. ku ko seexal. ah nañ waaye rek bàyyi ba ajuma suuf ma. yóbbu ma ci moom mu ma ba ajuma. ki seexal ngaa la war na maa seexal nag. waaw suba daf koy wax. suba am na lu mu wax fii ci ginnaaw émission bi. avant ñuy commencé ah, ah, eh, dafa mel ne suba. dina suba. cosaanu nodd. ci ngeen ñëw cosaanu nodd fu mu bàyyi ko ak lu tax ñu noddu. Hmm. noddu lu muy tekki. incha allah suba incha allah waaw ah, bu neexee yàlla tubaab fakkal la ayca kon nañ tàmbali ak alerte quotidien ñu ñëw ci.